kaare kaare ala seeda yegsi na wàllu yéen a gudd jib te moo waxe noonu te waxe dal na génn si na bal si ñu waay am si jib alors ba léegi ñu ngi ci ambiance bi ah macha allah ki ma jàkkaarloo nii nag jaratu ma koy présenté Sénégal jaratu ma koy présenté euh, monde entier donc bàyyi dem ba nuyu naa la. waaw dama ne maa lay fay sama xarit. nekk si jàmm. bëgg si yow. mais Baye Demba li nga kos moo fi temps instant bi waaw mais xam rek xam nga tey danga nga ñëw ba buntu kër Seng-Seng tey lépp luñ fi def ay defaat la rek ndax def nañ ko ba pare. waaw ki xew la nag muy ju Fay ci sama jarbaat maa yaayam ñoo bokk pap muy ajaratu Ndey Ñas mu mën li muy def lool ñu kontaan nag si seen yëg si tey waaw am contentement tey ñu woote tey ñëpp ñëw kon daan naay ala rek. na pousse sa kanam rek waaw. ngeen tëgg fi lu neex xumbaay bi ak mumbaay bi macha allah. waaw ndax loolu sunu baay moo ko def ci ñun muy alaaji bee sëñ mbay jee di sunu mag di sunu kilifa tey moo tax tey bàkku junne sax di nga ko fi dégg tey tey lu ne fii xew ndax fii lu ne xew na fi am contentement bu baax a baax a baax a baax a baax ndax fi nga ma dékkee micro bi nii dafay sama kër baay nag.

Seng-Seng ak groupe jàmm rey waaw lii rek la. lii rek la waaw lee waral sunu teewaay. dama ne dama ne di sama tëggkat amul benn tëggkat mooy sama tëggkat. ndeysaan mooy sama idool. bilaay walaay. maa Fallou Faye ñun ñu leen Fallou. yow lay dégg. Fallou. maa Fallou Faye. yow lañ Fallou chaque jour dañuy toog a toog dañu ko nga jàpp sa ñaam moom nag. boobu ba léegi fay toog. barke a bàyyi na fii. man yéen yéen ma di ci kaw Boy Dieye Faye. Boy Dieye Faye. dama koy gërëm di ko sant. Serigne moom ndax dama nekk gërëm mu def ma comme doomam ñu bari defe ne ma nag maa ngi yé bëri naa gii laa yeewoo yeewoo te ma fi de maa nga sàkkari gërëm naa leer seen nag eh ma def maa ngi tudd sama bii yàlla leen yàlla dafa jàpp yéen a ma yéen a neex sama jàpp dama ne bàyyi leen ma boo ñëwee fay yaa na ma fi yàlla bàyyi sama nijaay boobu ba ma feebaree eh firkude ley seeɓal e hom seeɓale ina alaɗa luy ala dafal luy ala dafal ley a ala ah, ah, eh, bayi wax yo buma bayi wax daɓaga ƴer ti ni rek la nan yow ah, mais lu ne len dégg alaɗa dee sax merci jërëjëf laajuma ramane kama feebare daa jël xaalisam dooleem des moom bu bari barki Seydina Muhammad loolu su ma ko waxul nag du ma ko wax. maam Ndiaye néegi jabaram téye ma